jërë ngeen jëf waxi Macky Sall yi woon keroog 31 moom la yéene kay xëyee tey 2 janvier discours à la nation bu président national bi li ci soleil national jàngat moo di njiitu réew mi Macky Sall fa mu tegoon ab tànkam ci social bi teggiwu ko firnde bi journal bi nañu mooy président nee na bourse de sécurité familiale yi tolloon ci juróomi junni danañu ko yokk yóbbu ko ba ci juróom-ñaari junni dafay jóge ci 25000 dem ci 35000 wax na it ñeenti téeméeri milliards ak juróom fukk mu di 450 milliards dund produit énergétique yi koom-koom gi ak dundinu askan wi maanaam économie bi ak sociale bi direct news nee nañu mooy ñaari ponk yi nga xam ne njiit mi fësal na ko bu baax ca message ba journal le mandat xëy fësal li wax moom Macky Sall ne nguur gi fas na yéene yëkkati 450 teg ci taabal ji ngir wooyee falal askan wi seenu dund ci at mu yees mi ñu nekk at mi ñu nekk mu di li ci di yitte maanaam urgence l'observateur mi ngi ñu koy wax boole économie lëj-lëj yi am ci géopolitique bi ñaaxo-ñaaxo yu ci justice bi ak aku transparence dig leeraange ci yorinu réew mi journal l'info nañu moom li mu gis ci message à la nation bu Macky bi moo di doxalinu nit ko troisième nekk cim xelam tur nañu loolu dafa leer Macky caaxaan génneewul cim xelam troisième te ñi am dégg-dégg ku ci dégg li mu wax keroog ca Tamba war a xam ne Macky Sall annoncé na troisième candidature ci tournée bi mu doon def yi ca Tamba ki dina kay xëy na di ñu jukkil sànce yu mag yi waa réew mi di xaar njiit réew mi bokk na ci fexe ba génne askan wi ci ndóol gi ñu nekke fexe ba réew mi bañ a wékkeete ci ma sàmba ba ci ma demba ngir mën a am lu mu dunde 2023 ndakaaru dana mel ne Paris noone la ko journal Source A bi ne ci xëtamu njëkk lépp rek ngir tënkal ñu ni mu jàngatee message à la nation bu njiit réew mi bourse sécurité familiale yi Macky Sall nee na danañu ko yóbbu ba ci 35 450 milliards yi ñu i collège yu nekk ci réew ci ñaar fukk ak ñaar yu ñu war a defar baay yu ñu war a defaraat ci gi 115000 yu ñu war a ci ñaari junniy wilaas yii yëpp xibaar la yu suur soit juqee ci discours njiitu réew mi réew mi quotidien bind ne keroog 31 décembre Macky Sall concert de la doon def Ousmane Sonko concert nañu waaye yeewi askan wi ak nañu ko digge woon noone la ko defee bool yeek cin yeek pot yeek xott yeek xotaat yi lépp doon jollee fu nekk ci réew mi suur soit nañu ay mbuuca mbuuc ay xale yu toll ci fukkeet bi waay yeewi askan wi woote woon ci mbeddi ndakaaru yi ak ca banlieue ba ci xët mu njëkku la mandat Mamadou Lamine Massaly moo fa xëy di dammat Karim Wade ubbil yéenekaay bi njiital parti bi di union pour une nouvelle république yàq na fa Karim Wade luy tàkkate du fay li Karim Wade wax ci at mu wees mi jëmee ko ci li mu jàppe mal gouvernance ci nguurug Macky Sall loolee moo naqari Mamadou Lamine Massaly ba tax mu tontu ko ba wis ko Massaly nee na waxi mal gouvernance wàññeeku li ko askan wi di ñaan moom Karim Wade Massaly nee na mooy mu fay leen seen ba noppi nag soog di wax waxi candidature waxi mal gouvernance triple S doomi Double Less di Balla Gaye 2 jëlli bi ko Boy Niang 2 daan démb mi ngi tege ci yéenekaay yu bari ñu xëyandool sunu lamb bind ne daan rakk daan mag lii la Boy Niang 2 def waa kër Double Less daan na fi saakees démb mu daan Balla Gaye 2 ci ñaari minutes yu manqué juróom-ñaari seconde sunu lamb mu di Balla Gaye 2 bés bi le jour gis na ne la woon woon na Balla dafay bëgg a jeexal ma jeexal ak li ñu Walf Quotidien moo xew ca salde ga ca Fuuta yëral xët mu njëkk yéenekaay bi dafa am ñu seen mbokk faatu ñu demoon ci armeel yi doon ko suuli waaye ay yamb mu leen dàqe ci armeel yi ñoom ñëpp bu ñuy génn armeel yi yéenekaay bi nee nañu ay daw lañu fa génnee Touba Darou Salam Karo Soumari.com Gambrendi et la Beauty Malaysia Yumo Home Choice Sénégal ak marque bi di Total Tools ñoo leen doon may ci yéenekaay yi sëñ Ndiaye du soppeeku ñu koy gërëm Mamadou Mouhamed di leen gërëm mbokk yi yéen ñi àndoon ak ñun ci euh, xibaaru huit heures yu njëkk ci atum deux mille vingt trois ñu koy sante borom bi waaye di leen ñaanal di ko sàkku it yéen atum jàmm atum deux mille vingt trois bu ànd ak euh, wér gu yaram naataange dara ci poos yi ak jubo ci xol yi. Euh, ci gàttal xibaar yi bokkoon na ci wàllu yoon ak euh, dogalu àtteep euh, député yi nuy xaar muy Massata Samb ak du Niang ñi nuy topp jëm ci cong ci soxna Ami Ndiaye Gniby keroog session budgétaire ba woon ci assemblée nationale ñu fàttali ne ci sumb bu njëkk bi procureur ñaari ati kaso la sàkk woon ci ñoom waaye tey la juge bi di siiwal dagalu àtte bi xibaar yi bokk na ci rapport cour de comptes ak werante gi ci aliwu Dia bu force paysanne xalaatam mooy ñu baax yoon def liggéeyam ci weneen wàll réew mi tolluwaay ak penc mi dafa gis ne nag war nañoo taxaw ci ni mu gën a gaawe ngir indiwaat jikko yu baax ya fi woon Casamance ñenu toxale ci seen i dëkkuwaay ndax ay wafa ak opération l'armée ci bërëb yenn yu ay fippu ne ñooy sàkku ci nguur gi ak gunge ngir ñu dellu seen i dëkkuwaay euh, bokk na ci waa bu ñàkk ñu ngi ko xamle ci euh, forum dib ndajeekub lal buñ doon amal ci Kagit département bu Niassia Abdoulaye Diop bu nekkoon ci technique. amiin yaa rabbi bokk lépp euh, ñu tàmbalee làmb ji euh, gaynde gi waaye gi daam na démb Balla Gaye 2 ci kanamu Boy Niang 2. combat bi kon euh, matul ñaari minute diggante ñaari mbër yooyu le kon ca arène nationale kon Balla Gaye comme ni ko xamee dafa song kon kii di Boy Niang 2 waaye li mu fa fekk daanaka dafa dëggal këcc <laughs> ndax Boy Niang kon wane na ni moo gën a féete xale mu daal di daan kon Balla Gaye numéro 2 ginnaaw kon ndam mu am moom ñu déglu ko. Balla moom xam na gaynde la moom xam naa day ñëw. <laughs> ma dóor ko arrêté xam nga ma dóor ko arrêté mu daw kii xam nga jël. ma jàpp ko mu rëcc. Ah. parce que boobu dafa dafa dafa daal. ma ma yàqamti ma ko ma ko. ma dóor ko mu jël sama tànk xam nga naa ko nag. voilà <laughs> xam nga. gannaaw bu mën a nga mais bu ñu wuree ci bëre di xam ne dàqoo ma ma koy ma taf ko daal jël yoon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 Boy Niang gi daawoon ndam bi kon taxawaay bi ci wax ji tamit uh, rafet na. rafet na rafet hmm. ñoom ñaar ñëpp d'ailleurs gis naa ñu hmm. après fóonante accolade. effectivement mais loolu mooy Sénégal. ça donne euh, signal bu baax ci ci supporters yi. ñoom it hmm. ñu ñu doxalee noonu xam ne sport kese la. ñu nekk nit. <laughs> ok bisimilah. ñu ñëw ci wàllu football bi CHAN 2023 équipe nationale locale bi di dalal di gàddu wala boog di nangu tey. drapeau national bi. xew bi tey ci suba la 10h30 euh, lay doon ca ministère de sports ñaari fukki joueurs ak ñett yi Pape Thiaw ñoom doon nañu groupement démb ca tubaab Dialaw équipe nationale locale bi kon tey ci ngoon dina fi bàyyeekoo dem ca Tabarka ca Tunisie ngir wéyal kon préparation bi ba le 10 janvier ca ginnaaw sa kon la ñuy dem ca Annaba ca Algérie moom mooy amal kon CHAN 2023 réewu Algérie euh, di ko dalee le 13 janvier Sénégal moom. matcham bu njëkk le 14 janvier lay doon digganteem ak Côte d'Ivoire su noppee dajee ak euh, euh, Ouganda euh, jeexale ak RD Congo ñu wéyal ba tey ci wàllum tàggat yaram ci réew mi ak liggéey stade municipal bu Fimela ci région bu Fatick nee nañ kon du yàgg dinañ ko door. suñu sukkandikoo kon ci euh, meeru gox ba ne nañu euh, site bi am nañ ko koppar gi euh, naka noonu kii di Karim Sène moo yëkkati kàddu yooyu le ci finale zone sept foofu la ca la ñu déglu ko ak Aminata Goudiaby. donc c'est une fierté pour nous à chaque fois bu final amee li mbiru stade bi moom lu taxaw la appel d'offre bi. lancé woon nañ ko stade bi dañ ko waroon démarrer pour commencer ko liggéey nawet bi ñëw bi nawet bi ñëwee fekk ñoo ñuy jiw ci jiw ci tool bi ñu bañ ay problème moo tax mais ren incha allah bu euh, bu jàmm amee bëgg nañ entamer stade bi parce que entrepreneur bi ko war a liggéey mu ngi fi pour que ñu entamer ko su ko defee stade bi su xasee ba am incha allah euh, recette yi ñu yël am mun a jël en charge arbitrage ak traçage beeg yëpp su ko defee yéen it na oyof ci ñun. mais boo xoolee tey ñaari communes yi li ñuy daj ak li ñuy financé dafay romb ay 6 millions ci nawetaan te loolu xam nga ne euh, vraiment métti na trop. Karim seen di maire bu Fimela suñu mbokku séeréer yi léegi yematuñu ci bëri bi. ñu ngi ci football bi tamit. ragal naa nag instant <laughs> bëri lañ koy gën a def la <laughs> ñu waxtaanee football bi bitim réew. Ah, waaw ak euh, lii di euh, France dëmbali ci gën a fës mooy Paris Saint-Germain defetam bu njëkk ci saison bi ci wàllum Ligue 1 ñi di waa lance ñoo leen daan ñetti bal ci benn lance kon léegi digganteem ak Paris Saint-Germain ñeenti poñ moo ci nekk ci Angleterre. Pape Matar Sarr joué na ay minutes yu njëkk ak Tottenham waaye ñoom dañoo ñàkk seen diggante ak équipe bi di asson Villa moo leen daan ñaari bal ci dara. lii di euh, première ligue bi démb match bu mujj bi euh, diggante Nottingham Forest ak Chelsea la 1-1 la. Euh, côté Chelsea Edouard Mendy bokkul kon ci liste bi kii di Kalidou Koulibaly titulaire la woon côté Nottingham Forest doomu Côte d'Ivoire bi di Serge Aurier mu égaliser kon pour ñoom seen diggante ak Chelsea kon match bi 1-1 jërëjëf Youssouf ñu dalal soxna Fama Dione ci chronique culture bi. daleen nag jàmm Kaffrine daanaka noppi na ngir dalal fukk ak benneelu édition festival national des arts et culture FESNAC fas yéene am 21 jàpp 28 janvier gii site accueil hébergement yi lépp daanaka opérationnel na nday awo bay dem na fa doxantu ñu déglu reportage bi. région bu Kaffrine noppi na ngir dalal fukk ak benneelu édition bu festival national des. ca Casamance wala boog réeróo gi boobaak léegi askan wi nga xamante ni ñoom la ñu toxale seeni i dëkkuwaay ndax l'armée bi doon dal ci fipp yu fa sañce woon ne bu nu sañoon ñu delloo leen seen dëkkuwaay yooyu ñu ngi ko xamle ci lël bu ñu doon amal cekkaag it ci département bu Niassia ci technique bi Abdoulaye jot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 tere kon euh, yëngoog liggéey ab diir euh, di kon incapacité temporaire euh, ci wàllu liggéey ñaar fukk ak ñett ci fan lu ci mun di am tribunal mooy dogal ñu ngi koy xaar bëccëgu tey gi ci talaata ji ñaari fan ci weeru janvier 2023 lu jëm ci wàllu que Sénégal ak tolluwaay li nag ak jikko yëpp woon yu baax Alioune Dia bu force paysanne ne bu sañoon mu dellu si lu jëm ci wàllu yoon ak lii di rapport Cour des comptes bi nag ci gàttal mu ne na nanu baax yoon def liggéeyam bay Assane Diaw ginnaaw bi mu noppee ci cérémonie officielle gàmmu bu mbëlëxee Aliou Dia ci bu muy jàkkaarloog taskatu xibaar yi daa jàpp ne ñiy wax ni Sénégal amuñ roywaay dañoo juum dafa am wax joo xam ne njariñam ngay seet ndax ñi bëgg gëmloo ni ñi ne Sénégal daal référence amatu fi ñooñu jàpp naa juum nañ Sénégal référence du fi jóg mënoo ñëw fekk réew mu Cheikh Ahmadou Bamba tëdd Seydi Hadji Malick tëdd fa nga dugg Jolof fekk fa Alaaji Daawuda Dia ñu ne la référence amul an kay am yi nga xam ne yi doon soxoo nag te bañ caa jóg ba nekku référence lañ dem ba am ñoo xam ne léegi daanaka rek dañ ko tegatul fenn jukko yooyu nag tant que delloo si wuñ ko lii nuy gis du fi jóge li tax mu fiy jóge nag mooy ñi nañ koy waxtaane ci daayira yi di ko waxtaane itam ci gàmm yi di ko waxtaane ci màggal yi ba nit ñi xam ne jukko ju baax moom du yàqub société référence yi du fa jóg leneen lu soxal meeru Mbëlëxe mooy yoon wi lëkkale daara ak dëkkam bi lu ko mooy amul beneen jafe-jafe bu ñu sukkandiku ci ay kàddoom Mbëlëxe de bu fekkee woon dañ may laaj am nañ a junniy soxla bi njëkk daal aw yoon la junneel ba aw yoon kon nun suñu jafe-jafe ak suñu bëgg-bëgg moom mas a nekk yoon waaye lépp lu dëkk di am pour ñu mën faa dund rek mbëlëxe am na ko wax ji jip fan yi yëpp te rapport bi tukkee ci cour des comptes nee na yoon def liggéeyam képp loolu day indi ay wax ci fan yi ci réew mi cour des comptes nee jàpp nañ diw waaye man ma jàpp ne cour des comptes rek am na solo ci réew mi ndax lépp luy tax nit xam ne li ñëpp bokk kenn waru koo yàq kenn waru ko luubal kooku dañ ko war a dooleel pour mu dëgër waaye gannaaw buñ ko waxee ba pare ñooña dañ leen saytuloo ngi leen di laaj bi jëm ci campagne ngir njaayum gerte gi njiitu kuréel gii di force paysanne nee na dina ci àddu fii ak ay fan yu néew. Baye Assane Diaw Mbëlëxee rajo Futur Media. jërëjëf Baye Assane euh, njaween bi may ñaan mu bañ ma dégg ci talaata tey jii ma wax ci altine ñaari fan ci weeru janvier euh, jërëjëf Abdoulaye Diop 2 euh, janvier 2023.